peut pas continuer oui. au moment où. Mm-hmm. ñu ngi gën a tàddeel mbir mi. ñu koy gën a tàddeel xam nga étape bii. oui bi la ñu war a. Mm-hmm. dépasser. dans un état de droit. Mm-hmm. xel mënul xalaat ngay téye ay fiches de parrainage. di xool ki nga koy jox ak ki nga koy jox waxoon nañu ruus tey. fi Sénégal toll ak quelques mois des élections ñu naan diw jot na parrainage am fiche parrainage yi am na problème clé bi ñu jox waa gëm sa bopp baaxul dafa am ay erreur ak yooyu ñu ngi rectifier mm-hmm. euh, Sénat mi ngi dugg ci wàllum élection bu ñu buggee élection bu libre et transparent mooy xam nga lan mm-hmm. nañu jox ñëpp seen fiche de parrainage nañu jox ñëpp la nga xam ne dañoo ko yelloo ak ñoom mm-hmm. ku ci nekk dem uti li nga war a am nga am ko soo ko amul ñu xam ne amoo mais waroon nañu rus nag fi Sénégal toll nii ak fi ñu yóbbu seen bopp ak ñoom li ñuy wax ci état de droit ñu naan ngay dugg ca DGE ci yoo xam ne dañoo ne élection yu leer na bu ñu joxee résultat ñu ñu mën ko war a war koo gëm Sénat di xëccoo ak DG. di ñu naan defal DG naan du ma def andi bras de fer wan leen ne yéen Sénat la ngeen di wax faalewu ma ko Sabassi Faye li mu wax loolu lijjantiwu ma ko man xam nga li ma lijjanti li ma fi teg ak lañ may wax loolu laay def ah aiguicheur amu ci de. ñàkk dëgg doo nga ci am lan moo ne ci ginnaaw DG. kan mooy mooy jox ndogal DG muy def. léegi lan moo lan moo tax loolu bu ko tegee teg fee. mais fi mu taxoon est-ce ministre de l'intérieur. jox benn mbir bu ndaw. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy tey bu ñu fekkoon mag yi ñu xëccoo. Mm-hmm. yow nga nekk suñu patron mën nga ñoo lijjanti. ministre de l'intérieur ci boppam na na na ñëw dugg ci guerre bi. na leen eh. DG li nga teg li nga wax teg ko fële. Mhm. Sénat li nga wax teg ko fële. yow DG maay sa supérieur jëlal fiche parrainage Ousmane Sonko jox ko machine bi tas. nga def li Sénat wax ndax Sénat mooy sa njiit te man maay seen njiit. Mhm. mais léegi loolu ma ne xooluñu eh, euh, lu arrangé mhm. li ñuy xool lu arrangé mooy lu arrangé askan bi askan bi mooy choisir ñoom teguñu leen fi pour ñoom ñu ñu defal choix à notre place. Mm-hmm. ñun ñoo leen fal. tey ñoom lu ñu teg bu ñu déggee monsieur le ministre c'est grâce à nous parce que ñu ñoo fal président président xool ci pouvoir am mm-hmm. leen ci mm-hmm. donc tegguñu fi pour ñuy xool ñoom lu leen neex lu leen naqadi wala ay affaire de question d'humeur dama bëgg a recevoir kii lu recevoir uma kii dañ la fi teg su ay base yoo xam ne c'est bien légal da def li nit ñi bëgg mënoo koo def nag li la fi dese bariwul gaa mais ji li la fi dese bariwul ay ñetti weer wala ñeenti weer moo ñu fi desee hmm. lu ñu neex dañ koy def loolu nit ñi duñ ko nangu mooy solution a bu jotee da hmm. la may def radiation bi ñu ngi mois novembre n'est-ce pas. Mm. waaw tey la ñaata. tey la premier tey la deux. tey la deux. oui des na des na fan. Mm. waaw tey la deux. tey la deux novembre. des na fan a ci des ñeenti fan waaw. ñu xool ba xam ñu xool ba xam. catana en tout cas euh, même parce que même bul dara euh, euh, bu ñu jëlee jël seen kele ba dem di wuti seen parrainage au delà de la personne de Ousmane Sonko projet ñoom projet la ñu yor en fait. Mhm. lu ñu demee lijjanti seen i parrainage même bu Ousmane Sonko nekkee foofu sax dinañ mën a sax samp seen candidat wéyal seen liggéey. donc euh, est-ce ex parti bi di Pastef. seen i ñoom man xam lan lay bañ nag man loolu man du ci d'accord ak yéen. ngeen baal ma. Mm. ci lan nga dul ci d'accord ak yow du ma d'accord également ak ñeneen ñuy wax ex Pastef waaw waaw mais dissoudre nañ ko. boole tamit mais mais est-ce que Cour suprême wax na ci dissolution bi. non mhm. donc man mënuma wax ex-Pastef xam lu mhm. tax. Mhm. ex-Pastef boobu. mi ngi yëngal. parti bi fi nekk nekkul ex Benno Bokk Yaakaar. moom mooy dribble moom mooy dugal moom mooy xool nu match bi di demee. donc mënuma jàpp ñuy wax ex-Pastef. parfois ñu invité sax ku bokk ci ñoom bindal ko diw. albolaax tel. ex-Pastef. ex-Pastef boo xam ne mi ngi fi ba léegi. moom moom du du ko c'est-à-dire du ci wax dara. loolu ma jaaxal moom waaw. Mhm. ex-Pastef ex-Pastef boo xam ne ex-Pastef mooy diriger ñi nga xam ne ñoom ñooy football ta kii bi nu ñu koy waxee football kii kii kii ki nga xam ne ki ah, titulaire bi. waaw bi ex bi boo xam moom mooy diriger <laughs> ah, titulaire bi. kon kañ foofu ah, nekkatul ex. balaa ñuy wax ex bi mm-hmm. kayit boo xam ministre de mm-hmm. mujjee bu ñu mën a xam ndax ex Pastef la waaw wala déet. c'est définitif ou pas. waaw waaw waaw des na des na quand même donc mën nañu wax pour l'instant ni. Euh, ex boo xam ne chaque jour mën na dellusiwaat. waaw pour jeexal affaire yi daal jarul sax ñuy xaar fii ba novembre. Mm-hmm. comme que Sénat am na privilège pouvoir boo xam ne mën ménage ñu dem continuer li nga xam ne mooy seen liggéey. Mm-hmm. pour ñu tànn keneen nag loolu mm-hmm. moom euh, ça revient à Ousmane Sonko. Mm-hmm. Ousmane Sonko rek moo ci mën a àddu. na votel leen kii. na votel leen kee. wala votel leen kee. loolu moom rek moo ci mën a àddu. boo déggee à chaque fois li ñuy wax moom mooy ndigal la xaar. ndigal loolu nag. kii di Ousmane Sonko joxe gu ko. Mm-hmm. mi ngi xaarat yi moom itam. ñu mm-hmm. ngi xaar ñu ana moom ñu koy ñu koy ñaanal tam ah, ñu ne amul loo ci dégg wala loo ci xam lu bees ci état de santé Ousmane Sonko fi ñu toll nii. dañuy dégg tamit lu ci bees lu mm-hmm. nekk ay avocat am ñoo koy wax. wala kayit gu fuité. te kayit moom gëj naa fuité ca booba. avocat am itam peut-être que ne. ngoone nag informé nag moo tax. parfois da ngay jot yenn xibaar yoo xam man mii du ko jot albara du ko jot. moo tax may def bay gëstu ba koy jot. waaw da koy link link dañ koy tooñee ni non link la link c'est vrai dañ koy liggéey. non. allez-y mais ma répété wala mais man ragal ma ngóoyee. allez dafa am link macha allah. bon en fait ci ça dépend si nit su may dégg dégg-dégg bi muy am ci link. Mhm. par exemple link maanaam boo xoolee baatu anglais la sama juum. oui juum link ah. waaw waaw ñun su voilà ñun suñu liggéey ba wàcc. di nelaw. ak di nekk si WhatsApp beeg yooyu. Mhm. yow yaa ngi wuti ay information. mi ngi noonu nag dala ko dala dala koy jaral waaw. journaliste bu nekk bu baax bu nekk. bu baax nga am exclusivité mm. comme Pape Alé Niang. moom mooy sama idole. waaw man dama bëgg lu xeelu ne ma njëkk koo xam njëkk koo wax. mais information di copier di copier la tere nelaw yow. waaw parfois da koy am ñoo ñëw fi toog laaj la ko nga ne doo ko wax. comme yan loo ma ci laaj ma tontu. mais yow état état santé Ousmane Sonko leer am na ci xibaar boo. xamante ni non man dew ma dew principal. dama lay expliquer mais soxla woo pour dem ngoone yow xibaar yi eh, nga sa pot sa téléphone ngay ngay lu la envoyé sa ah. dëgg ndax information ñaar moo ci am ki la mm. koy mm. am intérêt mm. wala mu bëgg am intérêt ko waxee nit ki gëm ko donc information sa part di dana ko ne xuraat daal di taxaw ne waa Ousmane Sonko li yéeg ma xaar ma pare direct ñu may jël si doo naan de tout cœur avec moom boo ci pare pare ngeen jàpp ñu bari yéen a leen jàppalu ba pare toogee neen naan pourtant bu baax la woon ak xajoon na fi loolu laay bañ ku ma ko def information bu ma am daal mu wóor ma ne lii mën naa ma la a dugal yenn question la doon parce ko moom te li mm-hmm. may wax xam naa ko mm-hmm. a wax lu ma xam ci état de santé Ousmane ma ko ah mais rëcc xam nga man lu am ci loolu dama koy partagé xam nga lu am yow mm. fii lay toog ma woo avocat directement mm. Mm. ne ko lii ak lii du benn du ñaar ma ne ko lii ak lii dama ko dégg. Hmm. na laa koy gisee hmm. est-ce que dëgg la est-ce que yéen a ko wax ba pare soog ko traité. soog ko traité man ci foofu laa nekk. waaw hmm. ah, loolu yëpp link la moom génneegul link ba léegi <laughs> moom Ngor li mu fi wax yëpp moom moom siyaasu link. loolu link la rek. waaw wuti link moom bu dee ba ba lu am ci mbir Ousmane sax xam nga Maître Clédor lii je pense noonu la tudd Maître Clédor lii. waaw moom moom moo moom moo jiitee pôle d'avocat Ousmane Sonko. waaw donc te yow sa sa maanaam da ngeen di liggéey. man sama papa la du liggéey man sama papa la. waaw sa papa la kon yow soo amee leneen soo amee xibaar boo war a jëpp Mm-hmm. moom bu koy bu koy jox xam nga dafa am ay dafa am ay ñoom ay. xam nga foofu lu ma ci wax man du du tooñ wala nekk su la défensive. Mm-hmm. xam lan moo lan moo bon. Mm-hmm. ci ci information. mooy nga tayal def recoupement. ñu bari yow tey sa page Facebook bi ngay bind mën nga ci bind dara rek koo xam ne na journaliste dem copier ko coller ko te deful recoupement pour mën a xool exactement est-ce que information bi nga joxe lu fiable la wala déet man Ousmane Sonko ba ma koy couvrir nee naa Ousmane Sonko ba ñu koy njëkk gaz lacrymogène ba mu njëkk ñam lacrymogène maag moom ñoo ko ñamandoo ma bañ koo rajjee ca point E, mhm. e. maag moom ma ko ñamandoo su soxla na ne boobu man ay talon laa soloon mhm. damaa dugg ci bitig bi jënd carax bu téeméer pour mën mhm. ko sol pour mën a couvrir kon xam nga ne ba may couvrir Ousmane Sonko man lu ma la ci waxu keneen mënu la ko wax bañ koy rajee dama kaa fekkee bañ koy gazé dama ko fekkee bañ may braqué fii arme naa man dégagé xale góor yee ñëpp ngeen daw bàyyi ma ci tunnel bi man dama kaa fekkee Mm-hmm. kon su ma ci wax man war naa ci mën a parce que nekkul loo mm-hmm. xam ne dama koy wax pour wax ko ni mais li ma ci li ma ci wax yépp dama ko fekkee mm-hmm. am ci ay image sama technicien may wax mais comprendre ma ba ñuy xamal lan buntu këram nee na nga ko fekkee ba ñuy ba ah, ay waay ay waay loolu ba ñuy tuus nga naan ba ngaa xaadim rasul ba ñuy tuus. non loolu loolu du brique bi. doo wax xaadim rasul laa Serigne Touba. Serigne Touba nga wax mooy élément. bip bi ñuy doon dóor. xeer bu fekkee ko man ndaga man maa mucc ba léegi ba mën a toog di wax ci mm. Ousmane sonk mm. xam naa bu ñu tamee bay ba mu ba mu toog bay décorer di joxe ay médaille d'honneur ak yooyu mm-hmm. man dañ ma koy jox mm-hmm. bi ma ko joxul dama koy laaj mm-hmm. xam nga tax boobu man ak Seydou kese ñoo nekkoon ci buntu kër ñu koy dóor xeer bi muy daanu loolu sama kanam sama yuuxu boobu yaakaar naa sama baat bi ñëpp foofu lañ ko xàmmee ndaxte loolu dama kaa fekkee moom moom taxaw jour ba ñuy toj otoom fii ci corniche bi ma taxaw di ko jël élément GIGN bi braqué ma armam ba def ma neutralisant boobu noonu maa ngi taxaw di ko jóg parce que peut-être que ne bëgguñu woon image boobu génn waaye wax dëgg yàlla génne nañ ko donc ñiy wax ci Ousmane Sonko ñenn ña nga xam ne euh, man dama naw jeunes yi nekk fii tëdd kaso ndax Ousmane Sonko. Mhm. te bokk ci projet bi xam nga la moo tax. Mhm. Euh, bu ëllëgee bu ñu wax histoire bu Sénégal wala ñoom bu ñuy mhm. nettali. ñoom mun nañu nettali jafe-jafe bi nga xam ne daj nañ ko pour projet Ousmane Sonko. am ci ñoo xam ne nag ñoom déjà. liggéey liggéeyaluñu Ousmane Sonko man dama jàpp dañ ko yàqal parce que mënuma gëm nga nekk Europe toog sa kilim wala toog sa ruq oto parce que peut-être amoo foo nekk toog naan Ousmane Sonko lii wala génn leen di wala génn leen di ñi xeex Ousmane Sonko ñu ngi fii ci Ndakaaru ak Ziguinchor di ko xeexal ñenn ñi ñàkk ci seen ay loxo am ñoo xam ne ñàkk nañ ci ay tànk am ñoo xam ne faatu nañ ci. donc ñoo ñooy porter projet bu Ousmane Sonko. man ña nga mm-hmm. xam dañoo nekk feneen ak feneen di wax. Mm-hmm. nawloowu ma leen. Mm-hmm. ñi ma nawloo mooy ñii nga mm-hmm. xam ne ñenn ñi gàddaay nañu génn dem. Mm-hmm. ku ci mm-hmm. mel ne Ousmane Diagne. ku ci mel ne. waa ji Papa Ale. keneen kii Ngagne Demba ñooñu dañoo gàddaay. kii faatu tey Papito Kara mhm. dafa bokkoon ci seen projet mhm. xeex xeex ba lab ci géej gi mhm. keneen koo xam ne muy Bentalib mi ngi ne ci kaso bi kii dee kii exilé kii emprisonné donc ñoo ñoo mën a wax ci projet Ousmane Sonko mu saf sénégalais yi euh, ñu ngi commentaire di apprécier mais waa ji mi ah, mais mais yoon mais mais lacrymogène bu ñëw si yow mais mais bu est ce que xam nga la moo tax ñu leen di sànni lacrymogène ah, loolu stratégie la parce que day am foo xam bu ñu fa tolloo image yooyu noonu du ñu mm-hmm. bëgg mu génn mm-hmm. moo tax ñu def lacrymogène pour mm-hmm. disperser leen ngeen dem mais da ngay taxaw nga dékku ko mais dékkul sakal gala même pour lan may dékk gala ah, mais kamara man sama dënn attan ay gala <laughs> ban ban dënn nga fi am ah mais déet man dama man sama dënn tax koo déwér noonu tamit de ah, non yaa ko choisir de yaa choisir métier bi mun ngaa naan lacrymogène bal perdu mun na laa laal lépp mun naa waay waay mais même ñu nekk même ñu nekk Europe aussi nga dañuy góorgóorlu si projet bi parce que boo xoolee suñu nekk Europe jamono ji du ñëpp de ah, daf si am ñoo xam ne. Mm. dañuy dund ci kaw Ousmane Sonko. Mm. xam nga dama lay wax parfois dafa am patriote yoo xam dañoo. yeewu ñan nga dund am patriote yoo xam dañoo yeewu. Mm-hmm. ñii seen bopp dara daf cee nekk. Mm-hmm. ñu gëm projet Ousmane Sonko. Mm-hmm. di ko ci jàppale. gis nga ñiy taxaw di saaga ay sëriñ. di taxaw pour ñu ñi ànd ak Ousmane Sonko la ñooñu ànduñu ak Ousmane Sonko mooy ñi yàqal Ousmane Sonko. barki démb boo Ndiaye nañ fi Amadou Ba yi nga xam ne dañ ko jàpp kaso. waxal nañ ko fii. Mm-hmm. Mm-hmm. Abbas Fall waxal nañ ko fii. keneen mm-hmm. ak keneen waxal nañ ko fii ñooñu nekkuñu pour jàppale projet bu Ousmane Sonko mais au contraire. dañu koy yàqal mais jàppoon ni par exemple dafa am koo xam dafa nekk seen biir soit mu nekk. nekkul seen biir ca beneen wàll bala ne. voilà voilà ñooñu ñooy liggéey ak état bu Sénégal di wëlbatiku. di tuumaal nit ñi ne dañuy liggéey ak état bu Sénégal parce que man dama jàpp ne ku ku nekk ci benn projet. muy projet boo xam da nga ko gëm. Mm-hmm. gis ka porté projet bi taxaw bu mu taxaw mm-hmm. xam nga mës naa ko toog wax ko fii waxaat ko ma ne man mosuma gis Ousmane Sonko wax mm-hmm. benn wax boo xam ne dépassé na kilifa diine gisaguma ko bu fekkee kenn gis na ko peut-être que moo ko gis wala yéen bu fekkee gis ngeen ko mosuma ko gis mu taxaw saaga li ma koy gis yëpp dafay wax lu jëm ci wàllu justice dafay tudd ay tourné kii ak kii ak kii donte nekkul magistrat yëpp Mhm. di wax ci li nga xam moom la gëm ci projet donc yow bu fekkee da nga ne projet boobu nga gëm mhm. kii nga bëgg mu jiite réew mi dafa am wax ne kii dafay porter benn projet ñoom kii la ñu gëm mhm. na ñu mel noonu par contre fépp foo dem dafa am ay brebis galeuses ni journalistes yi amee ñoo xam ne mooy loolu ñeneen itam noonu la amee moo dañ ciy rax pour yàq mbir mi ñooñu nag dafa am foo xam boo fa tollee da ngay jël sa responsabilité seppi leen mhm. teg leen fële mhm. jéem a demal sa bopp mhm. ñu ngi ziar bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp jamono bi nekk di commenter ku ci mel ne Baba Lébu ñu ngi lay ziar kooku sama mbokk Lébu la Baba Lébu waaw moom mu ngi commandé sànq ba nee na ñoom bin vinaigre la ñuy laal vinaigre te xanaa demoon na nag ba prix na nar a commencé woon yokk ndax manifestation yu bëri <laughs> waaye delluwaat na si prix normal am ndax manifestation amatu damay <laughs> waaw lu ne feebar. xam <laughs> nga moom nee daa am yëpp. lacrymogène da koo sori de non non dañoo sànni benn lacrymogène. Mm-hmm. Mm-hmm. boobu moom mi ngi Cices. Cices mm-hmm. laa la wax ah, lii lii fii. lii ku ci ku ci jàll fekke woo. <laughs> Cices. <laughs> tubaab mi ngi Cices. waaw gars yi sànni lacrymogène ñi ngi fële si te kër góor gi. buñ du fekke ngeen. bi ñu yóbbu Ousmane Sonko section de recherche gendarmerie Colobane. ndax loolu yéen fekkee ngeen ko. mi ngi woon fekk na la ci terrain bi. mooy mooy euh, bu njëkk ba. bi ñu koy jàpp Colobane bi ñu koy jàpp bi ñu euh, bi histoire bi laa lay wax. Mhm. bi ñu koy convoqué muy dem. Mhm. ñu jàpp ko rond point Estelle Mermoz. Mhm. ne dafa def trouble à l'ordre public. gàdd ko yóbbu section de recherche gendarmerie. mooy bi gendarme kat di téye lacrymogène bi lacrymogène bi di euh, explosé ci loxoom ba loxo bi. lan ah, muy dem ah d'accord waaw waaw boobu waaw ba manqué faa man a Mouhamed ñoo fa xam nga xam nga xam nga ne boobu dafa am ñoo xam dañu nekkoon au cœur des événements. Mm-hmm. fekkee lépp. Mm-hmm. bi DG police di ñëw bi commissaire centrale di ñëw. Mm-hmm. boobu le commissaire central ci boppam. Mhm. muy euh, Cheikh Dramé. Mhm. gis nga ko ni muy dem di wax ak manifestant yi. parce que mhm. ki taxawoon ci kanamu manifestant yore drapeau bu weex bi kooku moo doon diriger. foo dem dafay am chef de gang comme fii Ousseynou mu nekkee chef de bande nii. kooku moo taxawoon mu dem wax ak moom pour ñu teg affaire bi bi bi Babacar ba merci beaucoup pour les illustrations. bi bi maître Clédor di dugg ci foule bi. malheureusement peut-être que du ñu am image dugg di wax naan Ousmane Sonko bàyyi nañ ko ba ñu yëkkati maître Clédor kon. xam ne yëf yi. Mhm. yàgg na nekk mhm. dafa nekk benn euh, loo xam ne dafay bokk ci histoire u Sénégal. mais mais photographe patriote yi sax si la gaañoo woon je pense bëccëg boobu si lañ ko gaañoo woon ci tànk bi xaw ma si loxo bi. non non bokkul. bokkul ak xam nga bu njëkk ba yow bi ngay wax photo photographe patriote yi bokkul ak boobu jour waaw boobu c'est récent mm-hmm. boobu bokk na peut-être ci bi ñu koy jàppaat parce que moom foofu lañ ko jàppee ñaar yëpp rompre seen même bi ñu koy jàpp te Guy Marius Sagna di ko di ko téye ma dañu nga àndandoo mm-hmm. man à mon mm-hmm. Guy Marius Sagna la war a nekk parce que police di la yóbbu euh, euh, GIGN nekk fa ak armée bu ñu taxaw yëpp eh, ñu jël pistolet doo ko sa tànk garde corps mu tëdd ci suuf deret bi lal mm-hmm. yow ñu lay jël si yóbbu Guy Marius Sagna téye la mm-hmm. téye bu dëgër boo xam ne yow doo dem mm-hmm. kon tey Ousmane Sonko ku muy jàpp bu amoon ñeenti Guy Marius Sagna man jaa jàpp naa li ko dal nii tey ba mu tëdd lal hôpital du ko dal malheureusement dafa am ñenn ñoo xam mën na leen jàpp ay défaillant la ñoo ñoo nekkoon ci biir di liggéey pour seen bopp euh, am nañu am nañuy réclamer aussi euh, ngoone naan euh, dañ la gëj a gis nga su na mën nañ say live ak yooyu la dëkk bi looy kon comme mu ngi fii ça veut dire mu ngi fii di seetaan. xam nga ñu ci lu day baax parfois ngay leeral xam nga mm. boo daan live mooy lan. Mm-hmm. Sonko ngay wuy ji. Mm-hmm. sonkoo ngi dem géeja Géejawaay wala Sonko ngi dem nga live Sonko ngi hôpital fooy live. Mm-hmm. xanaa buntu hôpital principal moom bu ñu la fa jàppee live la directement campagnat nga jëm. Abra dafa mel ni. laay ban daal laay <laughs> ban daal kii na am laay bi rek yow xam nga comme ni laay xam nga gars yi ñoom bëgg nañ laay bi. ah bëgg nañ laay bi mais fu ne ah. koy laay val. Hmm. xanaa doomu damay ànd ak Amadou Ba te tourné économie ba di leen di ko di ko laay val. Hmm. ah mais loolu liggéey la. lan mooy liggéey. Ah, mais wala <laughs> métti nga nag de. non méttiwu ma dama la laaj ma question Abdoulaye doo ma jàppale ak. mu bi Amadou Ba jamono tournée mi ñu dem ne ngoone dafa presse bañ koy topp waaw mais presse boobu ñoo opté. pour topp ko. xam nga ku ci nekk. Mhm. da nga da nga da nga am droit def lu la neex. Mhm. man personnellement opté wu ma. Mhm. pour jël sama téléphone di ko live Amadou Ba xanaa man sama téléphone. maa ko moom sama connexion waaye yow bu fekkoon Ousmane Sonko jamono ko. waaw lu tax dañ koy seetaan. nit ñi ñoo koy du man de. man aw ma importance mais kon information fa am équilibre bi a pas doxi soxlaam nga topp ko. di doxi soxlaam de. waaw waaw mais mais soxlaam lañ ko. ah ah, ah soxlaam de du sox du soxlaam. lan la bàyyil di di di andi. waaw mais lan la ma la def waaw waxal lan la def. Ousmane Sonko fu mu doon dem lan lan la doon dem hmm. wuti. d' su ma nee di jox soxlaam mooy Ousmane Sonko da doon jóg di dem si benn xalifa général. waaw wala mu dem di masaw ñoo xam dañu gaañoo ak ñooñu. mais ñi gaañ waa waa kañ na ak hmm. yow. léegi mën nga jàpp soxlaam la. Hmm. Euh, tey bu Ousmane Sonko euh, demee ci ñoo xam ne fi dañoo gaañoo mu leen di masawu. di am kàddu Ousmane Sonko. Mhm. di nga am gaañ euh, kàddu ki ñu gaañ. mu mhm. wax di nga am kàddu yaay am kàddu papaam. Mhm. par contre su ma àndeek ak Amadou Ba. mu dem fële ca caajaay dinaa indi ciment dinaa andi kii. bu ngoonee ngeen voté ma léegi yow. en tant que koo xam ne professionnel nga. Mm. dama lay laaj rek. Mm. ci ñaar yooyu lan la ci nit di seetaan pour ne pas faire que mm. Ba mu ñu pour mu leeral. Amadou Ba Ousmane Sonko yëpp ñoo yem. pour sénégalais yi. mais ku ci nekk am nga contenu boo xam ne nit ñi ñoo ko bëgg di ko seetaan. tey man tournée économique. bu président de la république dem naa ci. ñu bay ne woo ci dem ma ne man maay xool fu ma neex ma dem ci xam lu tax président Macky Sall su wootee mun nañ dem mais problème bi du dem problème xam problème lan la problème de contenu boo demul yow bu fekkoon ah président Macky Sall dafay dem te demoo wala Amadou di dem te demoo. Mhm. mais ñoom li ñu liggéey nan koy xamee pour toog. pour loo xam ne nga nga ne doo leen topp Ousmane Sonko ngay topp. Ousseyn kon yow naka nga xam ñoom ñu ne waxuma la ne. Mhm. Ousmane Sonko lay topp bu ma waxal loo mhm. xam ne dañuy seetaan waa xaaral déglu nit ñi dañuy seetaan dañuy analyser te ku ci nekk da am sa point de vue par rapport ak loolu euh, soxlawuñu. Mhm. man soxlawuma. Mhm. ànd ak Amadou Ba pour xool li nga mhm. xam ne def na ko pour Sénégal. mais war tournée économique. man dem naa fa. demati fa. lu ñu fay def inauguration moo fay am. xam nga bu baax li ma lay wax bu leen defaral wala ngay ut lu leen neex. tournée économique bu ñu fa demee demuñu fa pour def leen dañ fay dem tour euh, def benn centrale électrique boo xam dañ koy inaugurer. toog def. jokkoo ak ndaw ñi lan lan askan bi xam ko. mais bu ñu demee si benn dëkk. waaw ñu maa ngi am jafe-jafe ndox. ministre bi dem pour samp ko fa. ministre bi ah, ministre bi moom wane ah. ko loolu loolu du la ko bi moom. waaw woon a am gàcce di ci jamono fi mu toll di dem di inauguré loo xam ne pour ñàkk ndox la. Hmm. ci jamono nga xam ne yow yaa ngi naan ndoxu kireen hmm. yaa ngi tëdd ci clim. Hmm. yaa ngi ni toog di seetaan dëkk boobu noonu toog ba jamono bi yu leen di doog a joxal ay eau potable loolu bu am woon gàcce toog di ko inauguré. ana ministre assainissement ak eau léegi raison la yow raison la. pour non non question. xam nga dama poser ma répondre la. Mm-hmm. ba pare poser waat la question. Mm-hmm. ndax ci jamono bi ñuy toll Sénégal mm-hmm. fii. war ñu woon rus ñu naan dëkk bële ñu ngi leen doog amal ndox wala ñu leen doog a inaugurer ay centrales électriques. mais état continuer la population bi day màgg ngóone. population bi day gën di màgg di gën di màgg. dëgg la ndox bi day taxaw tout le temps. fii ñii sax courant bi dafay ni muy stable ni ngay bëgg ma stable léegi li ñuy defar noonu yow doo ko wane mais li ngay wane mooy li nga xamante ni nit ki toog na. Mhm. di ko kaas d' accord. d' accord lu normal la mais dafa war a am équilibre pour man. waaw d' accord équilibre mënul ñàkk. Mhm. dama lay laaj ne la. Mhm. ndax Amadou Ba ba tey tontu boobu ci ma la wax ndax Amadou Ba. moo war a dem di inaugurer. hôpital bu bees. ndax moom moo wax a dem di inaugurer ay centrale électrique wala moo war a utiliser. ay fontaine wala forage ndox. ndax moom ma ko ci loolu. ndax loolu moom moo ko war a def bu jàppee ni moo ko war a def. non amul bu jàppee lu nekk dafa am logique xam nga nga wax léegi loolu ñu a wane lii eh, moo ko war a def kan moo ko war a def pour yow lu ministre yeneen nag yeneen ñoo ko war a def hmm. premier ministre am na yeneen préoccupation hmm. yoo xam ne hmm. loolu mooy nekk priorité que dem di inaugurer wala di def li nga xam moom mooy tournée économique tournée économique c'est pas le moment xam nga instant bi moment lan nekk moment bilan bilan li ñu jot a def li fi jot a nekk man à mon avis la ñu war a def mais pas ay tournée économique lu ñu woon ba heure bi ko Mhm. foofu foofu d'accord d'accord d'accord d'accord d'accord na ak yow euh, Albourakh. Gora li wax keroog déggoo ko fii. keroog ngeen dem ci manifestation. lu mu wax. <laughs> lu tax demoo ci manifestation.